apparemment déclaration bi dañ ko daal di annulé avec la presse on ne sait pas euh, pourquoi donc les raisons de cette annulation de dernière minute mais li solo rek mooy faatu ñuy wax ni rek euh, daanaka douche froide nag la ñuy nemmeeku fi nga xamante ni euh, mooy ci siège benn bokk yaakaar parce que nag au départ y avait beaucoup d'enthousiasme mais après bi nga xamante nag annulé nga xamante ni mooy déclaration bi daanaka nag ñu gis ni tamit autour de lui y avait pas beaucoup de monde notamment des militants et yi nga xamante ne ñëwoon nañ peut-être pour un peu euh, le revigorer l'accompagner mais malheureusement nag donc ñu jàpp ni euh, c'est un sentiment de déception aussi bien euh, ci ñi nga xam ne mooy taskatu xibaar yi mais également ñi nga xamante ni mooy les militants donte nag à l'instant yegg si na fi nga xamante ni mooy ci siège bi gis nañu déjà ñoom ñi ngi fi surtout nag un groupe de jeunes pas moins d'une centaine yu nga xamante ni ñoo fi nekk daanaka rek pour gunge ko soutenir ko ci li nga xamante ni Euh, mooy euh, résultat yi gannaaw bi nga xam ne nag jàpp nañ ne ci tendance yu njëkk yi nga xamante ni mooy la coalition euh, Diomaye président moo jiitu ngum euh, ci résultat provisoire yi mais tout compte fait Fatou Abdou gis nga ko nii en image donc ce sont euh, des jeunes ki son la PM mi ngi soog a yegg si nag fii nga xamante ne mooy ci siège bi à Mermoz donc ñu ngi xaar certainement c'est juste une façon donc de ànd ak ñi nga xamante ne militant pour revigorer leen comme ni ma ko waxee rek saafoon ak ñoom laataa rek muy delluwaat fi nga xamante ni mooy këram on sait donc cette conférence de presse euh, depuis donc euh, vers euh, minuit et demi mais gis nga il est presque une heure et demie daanaka ba léegi nag mi ngi soog a yegsi fii nga xamante ni mooy ci siège bi kon Fatou Abdou loolu lañ mënoon jàpp certainement dinañ ci ñëwaat peut-être di xool rek mais Amadou Ba mi ngi noonu donc c'est son véhicule présentement moom ngeen gis noonu en image vitre bi auto 4x4 bi nga xamante ni mooy V8 bi daanaka ci biir ana lan nag ndax dina wax ak ñi nga xamante ne mooy ses militants et sympathisants du compte fait la presse moom euh, je pense que li nga xamante ni mooy déclaration bi avec la presse euh, jàppal ni daal euh, dañ ko mujj annulé donc voilà ce qu'on pouvait dire Fatou Abdou fi nga xamante ni mooy ci siège bi kon bokk Amadou Ba mi ngi noonu di soog a dugg si fii voilà vêtu tout de blanc mi ngi nii ci biir oto bi donc moo fi nekk en attendant nag ñu xool peut-être comment vont se dérouler les choses mais rappeler simplement Fatou peut-être euh, ki nga xamante ne mooy Amadou Ba nag finalement sa conférence de presse avec les journalistes a été donc annulée pour ne pas dire donc euh, reportée à une date ultérieure parce que il devait se prononcer euh, def benn déclaration gannaaw les premières tendances yi nga xamante ni ñoo jox favorable ki nga xamante ni mooy Bassirou Diomaye fay ak la coalition donc ba Bassirou président donc loolu lañ a jàpp on essaie de voir ndax dinañu am li nga xamante ne mooy Amadou Ba en image bu fekkee ne rek mun nañ ko am euh, peut-être ñu euh, faire vivre leen ko mais euh, retenez donc présentement nous sommes au siège groupe de jeunes nag ñoo fi nekk di ànd ak moom ci di ko gunge pour véritablement xool après fan lay ndax il va faire une déclaration. Euh, de façon officielle wala nag euh, day wax rek ak euh, les militants mais loolu lañu ñu gën a jàpp parce que sa conférence de presse bi nga xamante ni moom la ñu waroon def ak les journalistes a été finalement reportée donc loolu la ñu mën a jàpp fii nga xamante ni mooy ci siège bi donc Amadou Ba progresse lentement wax ak ñi nga xamante ni mooy les militants et sympathisants yi nga xamante nag daanaka ci gox yi bëri la ñuy jógee yu fasantikoo mais on note une forte présence des militants et mooy Parcelles Assainies yi nga xamante ni euh, foofu mooy base am foofu mooy mel nag foofu tamit gis nañu tey li fa xew en terme donc euh, de défaite ndax euh, foofu it moom ci boppam dañ ko fa daal di gagné même dans son propre bureau de vote au HLM Grand Médine donc loolu na Amadou donc ñoom nee nañu Amadou la ñu àndal la ñu xam te Amadou la ñu war a la ñuy jàppale moo leen tax a jóg donc voilà ce qu'on en termes d'ambiance donc Asiko yaa yéen a ngi dégg forte ambiance comme niñ ko peut-être niñ ko mënee wax rek euh, bien que nag euh, ndaw ñi am nañu lu leen métti euh, ndax nag au départ il de la frustration également qui grandissait dans la salle notamment dans la rue parce que sax daanaka boo xoolee. Euh, li fi nekkoon ci mbooloo bëri woon na mais malheureusement bi ñu yëgee ni dafa annulé sa conférence de presse et eh, ñu bari nag amatoon information ndax dina ñëwal du ñëw moo tax ñu bëri daal di dellu donc finalement il s'est résigné pour ne pas dire donc euh, il a finalement décidé de de revenir euh, fii ñëwaat fi nga xamante ni mooy ci siège bi pour véritablement donc se prononcer certainement.